sëñ Moustapha moom sëñ Bassirou daa amoon yéene bi muy samp daara ji 2005 boobu jamono ji junni maam daara moo amoon mu ne junni daayira yi ku nekk na ma jox benn maam jaara ñu indi ko fii ci daar ji loolu moo doon yéene gi kon suñ xoolee tey ba léegi 2005 ba 2017 mënuñoo jéeg jéego googu kon mooy wane liggéey bi des na kon li ñu war a def mooy naka nañuy fexe ba fekk bëgg-bëgg sëñ Moussa boobu ànd ceeg moom ba mu am loolu mooy ndam bi loolu moom mooy mooy mooy jaayante bi te si mun taxaa foofu la teg tànkam ànd ko njabootu sëñ Bassirou bi yëpp ñu am yéene amal ndam sëñ Moussa Bassirou amal ndam boobu nag ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp ngir junni daara maam junni junni maam jaara yooyu ñu bu mu nekk une réalité mu nekk lu samp ci biir daara ci léegi nag loolu bokk na ci liggéey bi gën a mag nu ñuy fexe nag ba loolu am euh, bi sëñ taxaa jëlee liggéey bi teg ko ci sëñ Isaaxa loxo sëñ Isaaxa Mbàkke sëñ Isaaxa dafa xool ne si Moustapha yéene gi mu amoon ba léegi des na waaye ginnaaw dayra maam jaara yi ku nekk at bu ne ñeenti téeméer ngay barkeeloo at bu ne ñeenti téeméer dayra maam jaara yi ñeenti téeméer yooyu mu nekk liggéey bu am solo ndax diir bi fi daara ji amee ba léegi ñeenti téeméer yooyu nga xam ne daayira yu nekk ñoo koy yóbbante moo téye daara ji daaw defe naa euh, li ma déggee si Moussa bi nga xam ne moo yor trésorier bi daf ma ne juróom-benn fukki junni carte jaayoon nañ ko muy 60000 cartes 60000 cartes soo ko wëccee mille francs da lay cent 120 million téeméer million ak ñeent fukk téeméer millions ak ñeent fukk yooyu mooy weer bu dee 12 millions dem ci daara ji. ndaxte daara yi moom fukki million ak ñaar mooy li nga xam ne moom la ñuy dépensé weer bu ne muy yéeme loo xam ne kuñ ko waxul sax da nga yaakaar ne loolu mënta ne waaye loolu moo am te loolu ñeenti téeméer yi nga xam ne kuréel maam jaare yi nekk ci biir réew mi di dox ba fa ne ni ñu ngi ci ñaari junni ak yu ci tegu seen ñeenti téeméer yooyu par at moo yoon liggéey bi léegi nag sëñ saaxane ne ginnaaw nag loolu moo téye ñeenti téeméeri daara xay maam jaare yi nañu fexe nag wut yeneen yu pexe mu am yéenewu mu am yéenewu samp benn xalaat boo xam ne dañ ko tuddi parrainage. ginnaaw bi ma sante bu baax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal taabal ji ah, ki ci jiitu di sëriñ Fadal Lo mi nga xam ne moom mooy jàngaleem ah, diine ji ca daaree soxna jaara ma di ko sant di ko gërëm ndax euh, bu ma yeboonee ne bi ma ko waxee mbir mi ak léegi ci diir bu gàtt la loolu nag mu daal ñu koy nangul ñu wax fi wax bu am solo bi nga xam ne wax na ko kon loolu dafa mel ne moom lu mu dund la man ko lool ba nga xam saa soo ko bettee mu daal ciy wax te lu solo la ma koy sant di ko gërëm euh, sëriñ bi sëñ ma Lamine moom itam danañ ko beral cant boppam ndax dafa am taxawaay bu am solo bu muy taxaw ci daara ji mboolem nag ku mu nekkal ca ndakaaru ma nga lay xiirtal ci daara ji moo xam jigéen ñi la moo xam góor ñi la étijan yi yi ci koñ bu ne dafay dugg ngir di dajale ña fa nekk ngi ñuy indi dara ci daara ji te moom man xam naa ci dara sëñ Abdoulaye jox ko mais doo xam ne ci dara fu mu toll day dajale ci benn gox rek ñoo xam ne xam nañ na ñii ñu am pëstëb la mu ne ah yéen kat da ngeen na ngeen sasoon nangam ci daara ji kon ñu ngi ko sant di gërëm di am na ci xalaat man xam naa ne ku ci am xalaat la te ku ci am yéene la euh, sëriñ bi li nga wax nii léegi ci yar jigéen lu jafe la ndax bu dee góor li mu mën a àttan ci ay coono fekku ci jigéen ndax jigéen day néew doole jigéen li koy gaar day bari donte ndaw lay doon ci wàllu sante ci wàllu yeneen yeneen yeneen waaye li ñu ci nemmiku mooy bi daara ji sosoo ba léegi suñ borom mi ngi ñuy suturaal ak ñaanu sëriñ bi ak itam ak jàmbaaram ci daara ji ndax xale man de xawma xam-xam yu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak ak nutrition ni ñuy dundale xale waaye xam naa ne gone su fekkee dañ koy jox mu lekk ba suur te it xéewal lañ koy jox yi day am qualité dañ koy seet bañ nañ ki nga xam ne moom lañ jox wàññi muy dem bu demee la gën a cher gën a baax lay jënd ca te gis naa ne projet bi nga xam ne moom lañ sosa ji nga xam ne sëriñ bi dégg naa diirub ñetti at la ko teg di ko càmbar ànd kook ay borom daara ànd kook ay inspecteur ànd kook ñu baree baree bare ñoo xam ne xam nañ ci daara dara xam nañ ci njàngum àdduna dara bañ teg muy projet boo nga xam ne dañ koo tëral dara manqué wu ci yër naa ca projet boobee loo xam ne dafa jëm ci wàllu dundal xale bi nga xam ne bi ñuy soog a ñëw ci daara ji lu ne dañ koo natt peese ko ba ne xale sàngam war naa am nàngam ci meew xale sàngam war naa am nàngam ci ñebbe ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mel noonu kon liñ ci jàngate ci ci gàttal rek mooy nañ leen du dundee la dund bu sell la doon te defe naa ne ab sayoon bu dox bu accès ca daara ji dañ duñ ne dana neex de waaye dina sell ba nga xam ne nii ko euh, ci jëfandiku ku nekk bu ko buñ la xoolee xam tey rek ci ci ci tey euh, maa ngi recevoir euh, yaay daara yi jigéen ñi xam nga ne lu xam dañ koy wax bokkuñu ak góor ñi dañuy yërëm seen doom ku accès rek ne sa doom mel nga wax te suba ba léegi démb ba léegi ku ñëw dana ah yow de seen seen xale yu soxna si ñoom dañoo dañoo diriyànkee yow de seen xale yi moom xanaa yow moom daal a naqarul ci yow ak yeneen terme yu yoo xam ne yu reeru lay doon ñu wax seen doomi bopp lañ koy wax kon loolu xëy na da yëg-yëg bu njëkk ci ñoom ne kon sax duñ ko wax te loolu moo ci am dund ko sell lañ fay dund képp koo xam ne am nga jagadi sa yaram dañ lay saytu nañ la war a saytoo dañ la daal di gaaw yóbbu hôpital bu dee jagadi goo xam ne euh, wax dëgg yàlla gu gu yam la rek am na infirmerie ci daara dañ lay seet léegi daal lay bindal garab jox la ko léegi ñu dina ko jox ba nga tane su fekkee jaaxal lañuy indi ko poste de santé bi nga xam ne moo ci nekk ci euh, programme te ki fi nekk moom tam ak ku fi mas a nekk rek da ngay bàyyi xel ci daara ji ndax sëriñ bi la nga xam ne bëgg-bëggu bëgg-bëggu sëriñ bi la nga taxaw ci heure bu la ne ayca nga ne ayca bu dee ëpp na foofu ñu yóbbu ba ñoom. gis naa sax ñu taal oto fii di yëngu ba Dakar ci kaay yi nga xam ne euh, ëpp na Nioro ëpp na Porokhane kon loolu tam li ñu ci jàngi mooy wàllu santé moom dañ ciy taxaw bu ñëwee ci daal dañ fa fekk ambulance bu nga xam ne dañ fi doon wax wàllu ambulance ndax euh, bëgg euh, taalibe yi bàyyi ci xel ñu indi ko ci daara ji dañoo far sax indi ba ambulance sax far danga naan ñaar ba ñett ma ngi ci daara ci daara boo demoon ñu tey fekk ñaari ambulance di gaar nga xam ne heure bu nekk rek dañuy chauffeur baa ngi toog heure bu nekk xale boo nga xam ne aajo na ko dañuy jël dem yóbbu hôpital indiwaat ànd ak sutura sëriñ bi nga xam ne mosuñu faa gis lu jaaxal te yàlla buñ ko gis kon xale lu mu nayif nayif lu mu lu bu fekkee wàllu euh, dundam sell na wàllu wér yaa ngi koy saytu kon defe naa jafe-jafe dina wàññeeku euh, mu des njàng ma njàngum jigéen ku ne xam ne jigéen moom day gaaw a mokk liñ ci seetlu mooy jigéen boo ko jàngal alxuraan jàngal góor gu jigéen ji mooy njëkk a mokk xëy na mooy njëkk a fàtte waaye mooy njëkk a mokkal loolu itam moo nu may ñi nga xam ne ñooy daal jàng si daal ji daanaka li nga gis juróom-ñetti at juróom-ñeenti at ñoo xam ne fukk mokkal alxuraan goo xam ne bu yéeme lay doon kon ñi ngi ciy góor sëriñ baa ngi ci def lépp lu man ñu nit ñi ngi ciy góorgóorlu ba tax na jafe-jafe yi nga xam ne euh, am nañ ko ci seen wàll loolu jafe-jafe yoo nga xam ne lu ñu mën a euh, wax la ba mu àgg fenn fi. sama maman wa jërëjëf Serigne Mbaye euh, xam-xam ku ne xam lu mënta ñàkk nit bu fekkee ne bëgg na bëgg nañu dund bu bu réussir bu fekkee itam bëgg nañu du dakk mënta ñàkk ci nit ki mu jiital xam-xam. ndax jaamu suñu borom bala nga def def ga di di defin wu sell faw nga jiital xam-xam moo tax Serigne Touba radiyallahu anhu bi muy rëdd surtout ndaw ñi li muy njëkk rëddal mooy rëddal leen yoon xam-xam téere bu ndaw ci gisin te rëy lool muy tasawuru sixaar lu mu ca wax yaa sibyaanu laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi istaxilu ca beneen ba yaa ayuha in xiftum xajal fa xaddimu taaluman ala amal kon nit balaa man dara faw mu jiital xam-xam kon importance boobu bokk na ci li xam-xam am dana tax nit defaru soxna su tedd siñ doon wax léegi bokk na ci li tax mu xam fi mu jaar mooy tegu gi tegu ci xam-xam njabootu sëriñ Touba gi bu jigéen gi surtout Serigne Abdoulaye tudd na ko léegi ku ne xam ne ni ñu meloon ci xam-xam wala sax ca lu gën a kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njabootam xam ngeen ne la waxoon ci ci Aïcha ne xusu nisfa diinakum min hadihi al umayra kon wane na xam-xam ne lu am solo la nag ci surtout jotaay bi kon dañuy gën a isri ci jigéen Sëriñ Tuubaa loolu mu def ci lu am solo ci njabootam gu gu jigéen lu lu lu yéeme sax lu lu kenn mës a gis ñi ñu tuddee waa barsàq ñi xam ngeen ni ci nekk gi nekk ci kër Sëriñ Tuubaa am na ci ñoo xam ne mokkal nañu alxuraan ci biir booba ñi ngi ci kër Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bokk na ci rek ma tudd ci ko mel ni soxna Diop Mbacke nga xam ne muy wajuru sëñ Mouhamadul Mourtada ci biir nekk gi mu nekk ci biir kër sëñ Touba bind na fa juróomi kaamil loolu sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi ngi koy wax xat katabat bi yaddiha masaaxifa tuaddu xamsadan turaaka arifa soxna soosu bokkoon ci njabootu sëñ Touba soxna fas si la libaas di wayjur soxna moom mi Mbàkke ñoom ñi ñooñu ak ñu baree bari mokkal nañ alxuraan ci biir nekk yi nekk ci biir kër sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu kon loolu day lu am solo loo xam ne sëriñ bi wane na ko joxe na ko joxoon ko yitte yi nag mu ñoroon ko lool surtout jigéen lii sëñ Ablaay tudd léegi bay tudd soxna bi muy bi mu bindee kaamil ba yit ko sëriñ Touba loolu boo demee ci sëriñ Moussa Ka radiyallahu anhu nga xam ne am na benn marché bu martial ki doon jàngal soxna may muy Sinda Abdourahmane keroog la naan mu naan eh, keroog ba soxna Xadi bindee kaamil ba yit ko sëriñ Touba la ñaanal Abdourahmana daan ne keroog la naan ko sant naa la wér ngir sama doom yu jigéen yi bi wattu xuraana Cheikh Sidi yaa ngi ma doon aajar ba may soog a ñëw ngir doomam jigéen yi wattu xuraana loolu ma koy dëggalee rek li nga xam ne moom la Ablaye waxoon te Sëñ Moussa Ka ko foofu kon loolu importance bu am solo la muy lu mënta ñàkk sëriñ bi itam eh, di ñu soññ ko ba egg ci sax ne bokk na ci ngir ñor goom ko ñor mu ne bokk na ci pexe yi seytaane di taxawal muy dëddloo sama taalibe yi xam-xam loolu itam bëgg ñu xam ne xam-xam borom loo am importance la egg ci ba wax ñu nañu ku leen di tere xam-xam mu ngi leen jëmee ci ak réer ku leen di tere xam-xam mooy ki fi wut seytaane ci ko suuf kon loolu loo am solo loolu moo tax daara ji ci ginnaaw biñ mokkale alxuraan ba noppi lañ ci teg mooy ñu jàngaleen seen diine jàngal leen aslëf ci dem ci loxol arabiya lu ñu mën a jëfandikoo ci ngir mën a yokk seen xam-xam soxna si tudd na ko léegi ginnaaw bi ñu mokkale alxuraan ba noppi danañ jàng lenn ci téere Sëñ Tuubaa yi ak lenn ci téere yi nga xam ne dafa jàngale loxol arabiya kon loolu moo tax mu ñu boole ko ci ci programme programme daara ji kon xam-xam sëriñ bay mënta ñàkk ci nit bu fekkee ne bëgg na alaaxiram jag bu fekkee ne bëgg na addunaam jag mënut ta ñàkk mu xam mu am xam-xam muy góor mu jigéen loolu moo tax ñu boole ko ci liggéey bi kon lu lu lu nit ñi war a bàyyi xel la rawatina ci jigéen ñi ndax ñu bari bari day jàpp ne jigéen moom xëy na wut sa sonni ci xam-xam déedéet waaye bu ñu reyee ci Sëñ Tuubaa xool ci Soxna Jaara xool ci njabootu Serigne Touba xool ba ci ni ma tuddoon léegi ba ci ñi nga xam ne ñooy waa bar sax mooy ñi nga xam ne mooy wayjuru suñu suñu suñu baax si ñoom ñëpp ci biir nekk bi nekk ci kër Serigne tubaa ñu baree bari ci lañ mokk alxuraan ba ñeent ci ñoom bind nañ ci ay kaamil loolu nag yaakaar naa ne mooy li nga xam ne tey moom la Serigne bi dee waat tey ci daara ju mel ni incha allah. jërëjëf xanaa ñu jàpp rek ne euh, yéene bi nga doon wax sax ci si Moussa Bassirou yéene gi fexe. ba ñu am junni turandoo maam jaar kooku bokk na ci liggéey yi gën a màgg yi nga xam ne moom lañ war a def loolu nag moom mooy yaatal yaatal daara ji yokk jàngalekat yi tabax ay dëkkuwaay yokk matériel yi ngir ñi nga xam ne ñoo ngi ci liste d'attente bi di xaar ñu war a mën dugg ndax ñi ne ci bi di xaar danoo bëri te soo xoolee ne euh, defe naa juróom-ñetti at ak juróom-ñeenti at ngay duggee soo toogee ci liste ba fukki at ñëw doo doo dugg di kooku nag nekk na ab gàllankoor loolu moo tax sëñ Isaaxa xalaat ne war nañu wut benn système boo xam ne danañ fexe wuti yeneen koppar yu wutee ak ñeenti téeméer yi nga xam ne jàmbaaru daayira maam jaare jàmbaar lañu ndax li ñu liggéey léegi. 6 ans benn at la ñu dugg. juróom-benn juróom-ñaar. juróom-benn juróom-ñaar waaw <laughs> kon euh, yaatal gi moo foofu la nekk euh, sëñ bi ne léegi. nañu système mu parrainage parrainage bi moom dafa yomb ab barkeelu la boo xam ne dañoo jàpp ne euh, bés bu ne benn turandu Jaara war naa mën a téeméer war na ko mën a yoon sëñ bi ne téeméeri fanweeru fan di nekk ñetti junni léegi koo xam ne danga am yéene jàppale daara ji ci parenage boobu nga xam ne day ñëw soxu ci li nga xam ne moom moo fi ne woon te ñu liggéey ko fukki at du mën nga cee tàmbali loolu nag jafewul ndax euh, soxna yi wax dëgg yàlla taxawaay bi ñu taxaw ci liggéey maam jaara yi ba liggéey bi yegg si fii wax dëgg yàlla yéeme na léegi nag système parenage bi moom soo ci amee yéene rek da ngay da nga koy fësal am nañu ay ay talon yoo xam ne ay soxna yu nekk fii nga xam ne ñoom ñoo yor système parenage yi képp koo xam ne da nga am yi fes feñe sa yéene ci liggéey boobu mun nga dem seet ak ñoom ñetti junni weer bu dee nga taxawu benn xale mu jàng diineem am na ñoo xam ne ñu ngi jël fukki fukki xale am na ñoo xam ne fanweer xale dañuy jël ci seen pas-pas seen bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa wax dëgg yàlla euh, jàpp naa ne loolu jafewul dama koy misaal rek bu gën a sàggan man mi nga xam ne maa gën a sàggan ci wutum crédit yi ci téléphone yi nga xam ne bés bu ne téeméer ngay jënd ci Illimix bés bu ne téeméer nga jënd Illimix woote woote ba sonn wax yoo xam ne lu ci bëri sew seete amul njëriñ te mu jaral ñu bés bu ne ñu jënd Illimix téeméer daanaka weer bi ñetti junni la waaye suñu ne maam daara daara maam jaara joxe ñetti junni nga ne ay si ñu bi daa bëri man ñeent téeméeri mi jox doy na sëkk kon suñu suñu jaayante ak ak soxna si ci wàññi suñuy bëgg-bëgg yoo xam ne mbirum àddina képp la mën nañoo fas jàpp ci liggéey bi kon jafewul yéene la rek te yéene googu moom ku ci góorgóorlu soxna si dana gàttal léegi tamit am na système boo xam ne euh, soxna si moom gën na cee ndax ñoom ñoo ne ci daara ji am na ñoo xam ne dañuy indi seen barkeelu am ñoo xam ne dañuy jënd saabu ndax dañ daara ji mënut a ñàkk saabu xale dañuy sangu ñoo xam ne dañuy wut euh, ay toll ñi wut ay yére ñi wut ay dàll te loolu wax dëgg yàlla jafewul su nit ñi organisé dinañ gën a mën a liggéey liggéey boobu yaa yaate daara ji nag dafay laaj nag communication moo waral communication sëñ bi samp benn kuréel teg ko ci loxo sëñ Cheikh Fatou moom sëñ Moussa Bassirou muy service communication bi nga xam ne moom moo taxawal forum bi ngir mbokk taalibe yi ak mbokk jullit ñu leeral leen liggéey soxna Maam Jaara bi ci daara ji ngir ku xam liggéey bi mun cee bi te defe naa ne euh, ku ci góor góorlu nga ci mën a jëf ndax man su ma jëlee su ma su ma jëlee suma exemple ñun dañoo nekk Dakar di liggéey ci benn banque bu ñu wax BICIS bi ñu saafante ak sëñ Muntaxa ba xam liggéey daara ji bi ñu demee suñu biir dañ ne léegi ginnaaw sëñ Moussa Bassirou moom dafa noonu daayira yi li ñu joxe ñeenti téeméer at bu ne ñun ñu ne joxe ñeenti téeméer barkeelu ci ñeenti téeméer suñu sàlla si waaye dañ ko def weer bu ne weer bu ne ku nekk jël ñeenti téeméer joxe ko te loolu daanaka sax société bi ci biir mën naa ëpp loolu kon nit ñi suñu góorgóorlu tuuti war nañu mën a jàpp ci liggéey daal biñ ci doxee ñaari at banque bi ñuy wax CBAO ñoom tamit samp kuréel maam jaar ñu tax ci beneen at expérience ñëw suñu siyaar mu mujj bi barki démb wari ci la tof kon liggéey baa ngi yaatu ca ndakaaru ndax ndakaaru dafa nekk dëkk boo xam ne koom-koom ba taxaw na fa am na fa borom barke yi ñu nga fa borom xam-xam yaa ngi fa kon war nañu gën a fësal liggéey bi ca ndakaaru ba taxawal ay kuréel yoo xam ne day ñëw ànd ak seen doole ñëw jàpp ci liggéey daara ji tey suñu fexe woon société yëpp nga xam ne dañoo ne ci biir Dakar ñu ci bëri yu mel ne ay SICAP wala ay Sonatel wala ay Dakar Dem Dikk fu ñu fexoon ñu am ay kuréel maam jaara ñoom ñëpp ku ci nekk di ci barkeelu weer bu dee ñeenti téeméer su dee juróom juróom fukk ngeen at bi di ngeen indi un million un million yooyu ñëw tafu ci liggéey bi ne fi nekkoon kon gutum koppar gi moom moo nekk li nga xam ne mooy tey mooy fax ba daara yi mën a yokkaat ay jéegoom ñu gën mën a taxawal liggéey bi te loolu société bi ci biir jafewul ñeenti téeméer weer bu dee wax yàlla murit bu gën a sàggan mën na te ñun ñëpp mën nañu ko ci kaw nag ñu am yéene gi ak taxawaay bi léegi nag liggéey boobu ci li ñuy dox ci yaatal bi ci information bi ci fexe ba ñëpp xam liggéey daara Maam Jaara bi pour ñëpp ñëpp mun cee barkeelu ba liggéey bi ñu toll yem fi nga xam ne foofu la ko sëñ mu mën a doon rek yow mi ci nekk eh, te sëriñ bi ku ko xam mu teg la ci liggéey loo am na loo xam ne doo ko ñu may wax waaye danga koy xam waaye nag comme am na ñoo xam ne dañoo leen sant ñu am ndigalu man di wax ci daara ji muy sëriñ bi saa xam nga xam ne ah sëriñ bi da ko doon xaar ci liggéey bi ngir mu ñëw ah, daal ci jàpp bu baax ak ñi mu àndal loolu nga wax ba dugg ci kon dinaa ci sañ man di wax li ma ci xam comme sëriñ ma la wax na ko li ma doon dindi ci tàmbali mooy juróom ñeenti téeméer juróom fukk lañ aw bu war ci maam jaar diiru fukki ak ñaar wax dëgg yàlla daara ji mi ngi dox doxin am solo bu organisé bu ñu wax daara Magana moom daara bi moo tax yoon daara Magana teg nañ ko ci tegukaay boo xam ne pousse bu dem rek mooy sëñ Malamine dafa tudd loo xam ne du ma ko mën a tudd tant que ko bu tuddee nag faaw dinaa ko dëggal ndax man dama faa nekk dama gis mooy jaadu na nag fu mu nekk dañuy yokk daara ndax da gis daayira yi dañoo jàmbaare loolu soxna yi sëriñ fépp foo xam ne ci Sénégal dañuy téléphoné dara di lu manqué war nañu am temps bu am ci ñoom faaw ñu tudd leen am na muy joxe ceeb mu joxe saabu du ñu bàyyi itam soxna Aïda Ndiaye tudd nañu ko ci jotaay bi ndax am na lu rëy lu taxawoo ci daara ba mu fi jógee am na ñoo xam ne ñu ngi jël place di sa jéem seen gemtalaay gàttam kon li fi nekk nii li tax mu rafet mooy am na ñoo xam ne ñu ngi ci góor góorgóorlu carte ñi ngi ko jënd ñu ngi laaj ndax saabu ñi indi patenteuse ñi indi saabu ñi indi dàll ñi indi ñi ba nga xam ne la fa nekk ni ci aw ni moom ñi ngi leen di gérer na war waaye nag yokk dafa ma dafa doon loo xam ne ca ñaar te it bërëb boo xam ne defar nañ ko ba mu am fukki at ak ñaar milieu sax dañ ko war def dañ ko war dafa amoon changement classe war naa am changement néeg war na ko am te war nañoo dolli itam donga yi ba mu àgg fa war a àgg te wax dégg ngeen sama wax léegi ñu ne dañuy déplacé xale yi dañuy yóbbu ci hôpitaux yi bu ñu feebaree kon nag jaar nañ kon ñu am fa loo xam ne dañuy fekk xale yi ci biir daal ci res ci yi ndax boo demee boo liggéey mën di jàngoo ak yeneen yeneen yoo xam ne yu mel noonu loo xam ne loolu lépp def ko aajowoo kon nag li mu wax rek lay dëggal ne jafe-jafe yi moom foofu la jëm mooy faaw dana dooleeku ba euh, nii mu toll moom dina rafet mais waaye bu ko a weesu te it comme ñëpp ngi góorgóorlu ku ne di def léeg laaj la sax ah damaa bëggoon de am lu ma jënd indi waaye nga danga naan xaaral ko ci kanam ma woo ndax da ngay xam ne am nañu fi indiwoon coton bi xëy na dina doy ci mois bi am ko indiwoon saabu am na ko indi ceeb naa nga ko su ko téere yi am nañu joxe ay waaye nag ñooñu itam am nañu yéene ñu ubbil leen xalaatal leen fu ñu mën a gën a joxe carte yi aussi ñu ñeent téeméer lañ ko wàcc ko par at te ñu bari wax dëgg yàlla ñu ngi ci leeral nañ ko léegi lan lay doon ci at mi ak li mu faj ci daal ku ne xam ne ñoom ñoo jiitu ci liggéey bi ñoom quatre ñaar ñeenti téeméer yoo nga xam ne daayira yi ñu ngi koy wecciku lu am solo la nañ ci gën a bàyyi xel léeg-léeg nga laajte benn ko man carte nga koo doon jënd mu ne wax la a xàmmee ndax la ñuy jëndee la ñuy wecc koo carte yooyu faw day ñëw ci daara ji di def nga la nga xam ne mooy aju daara ji kon nañ ci bàyyi xel bu baax te it daayira bu nekk rek ci gën a farlu di weccu carte yi te léeg bi ñu la sax ñeenti téeméer la yor xam ne day ñëw joxe 1 million ne dagal ma carte barkeel ndax gaa nga fa euh, bi ñuy wax nii kenn ku ne jël am maam jaar du nit ki moom a mën a jël maam jaar am na daayira au moins mat na fanweeri nit fanweeri nit kenn jox ko ne di joxe 500 par mois muy benn maam jaar kon organisation rek la laaj waaye ni ma gisee nit ñi di di sooboo ci liggéey bi di ak ni ñu ko bëggee ku leen organiser bu baax danañ gën a jëm ci kanam. xeexal sax ba tudd ñu lu mel noonu. mooy état bi moom ba mu doole rek dafa participé woon ndax jàngalekat yi fi nekk yëpp état bi moo leen fi détaché ba ci man mii sax kon loolu jéego bu am solo waaye nag dafa mat di gën a yokkaat waaw dafa gën a mat di gën a yokkaat ndax euh, dama fàtte sa waa formation professionnelle boobu noonu euh, dëgg yàlla gis nañ ko mu am njëriñ lool ci xale yi waaw kon jéego boobu tam xam naa ne ñàkkul kilifa yi ñu ci dox waaye ñi nga xam ne ñoo yor jéego boobu war naa ci gën a gën a ba nga xam ne ñii dana gën a dëgër àgg fa mu war Euh, ñoo xam ne liggéey la boo xam ne liggéey bu rëy te muy liggéey nga xam ne moo gënal Sëriñ Tuubaa liggéey bi nga xam ne moo a Sëriñ Tuubaa lu nekk te muy alxuraan liggéey bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa defal na nit lu nekk jox na nit lu nekk te muy alxuraan liggéey boobu nag bu nekkee ci loxoy Sëriñ Tuubaa ñu ñu koy tudd di tudd Soxna Jaara di ko defee ci barab bi nga xam ne barab la boo xam ne bu am bu rëy la ci yoonu mooy kon liggéey boobu liggéeyu kenn liggéeyu mu rëy la waaye mën naa wax ne liggéeyu lislaam bépp la ndax képp ku bëgg lu baax yaakaar naa ne war nga dugal sa loxo ci liggéey bu am solo bi di daal man jaar ndax at yu néew 2005 ba léegi ay kaam yu bari yu jigéen génne fi mokkale fi alxuraan xame fi diine defaroo fit ba mën a defaraat ñeneen ndax am réew kenn xam ne lañ ca bu ñu bëggee mu jag mooy faaw ñu defar waa réew ma te xam-xam mooy tax nit ki mën a defar te fii defar nañ bi nit ñoo xam ne boo ëllëgee bu ñu tasaaree ci réew mi mën defar ay nit ñu baree bari ñoo xam ne boo ëllëgee bëri na tey lu yàqu ci réew mi ku ne xam ne tey suñu réew mi fi ñu toll nii yenn jikko yu yàqu yi yu baree bari di xew nit ñi di looraate seen biir lu bari di xew loolu lépp li ko muy ñu ko mën ko tudd lu mel ne rey bu bari geeg yooyu yëpp li ko waral mooy jikko yu yàqu jikko yàq yi nag li koy saafara mooy alxuraan te barab bi moom mi ngi ci tànk mi ngi ci léggéey boobu di defar société boo xam ne bu ëllëgee yaakaar ne dañ am nit ñoo xam ne ay Sénégalais yu jullite lañ doon yu doon ay taalibe la ñu doon yoo xam ne itam ñu jaar fa Serigne Touba doon jaar bëggul ñu jaar lay doon te Serigne Touba ni mu waxee mu jaarale fa ak njabootam bu jigéen jaarale fi ay ay kéem ba tey jii doomi Serigne Touba joo tudd tudd ci moom alxuraan xam-xam ba ñeent ci ñoom ay waykat la ñu woon shuara di bind ci arab ku mel ne soxna may mag soxna may kubra soxna may suxra ñoom ñëpp nekkoon ay bindkat nekk ay nekk ay borom xam yu xam ne ñoom ñëpp ci biir ci kër Sëñ Tuubaa lañ njabootu Sëñ Tuubaa kon liggéey boo xam ne yaakaar naa ku bëgg ku bëgg jag kon moo tax nag waaye duñ jeexal mukk nag te ñaanaluñ suñu borom dotte ay leeram Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassirou mi nga xam ne xalaat bii moo ko am di ku jub xalaat di koo xam ne yaakaar naa l'islam jëmu ko ci dara di ko xam ni la mu war def lépp def na ko matal na ko kon yàlla na suñu borom di gën a dolli ay fayam ndax tey kat liggéey bu toll nii bu bu bu tollee fi rek moom ay yéenam la ba agsi ci loxo yi rakkam ji nga xam ne nag moom itam fokk sëriñ bi bàyyi woon maa ngi koy gën a yokk muy Cheikh Amadou Mountakha moom itam di ko xam ne ñun ñëpp xam nañ ko ci ak mbaaxam bëgg lu baaxam kon loolu itam duñu jeex mukk te te te fàttaluñ ko ñu mu nekk lu am solo loo xam ne yaakaar naa ku julli rek na laa war na lay ndax xalaat ku ku borom xel mu rëy moo ko xalaat eh, te suñu borom eh, am na nit yàlla yoo xam ne lépp luñ xalaat rek suñu borom jàppale ci suñu Moustapha yaakaar naa suñu borom eh, xalaatam bu boobu suñu borom jàppale na ko ci te xam ngi ne alxuraan mooy loo xam ne ni ko yónni sama waxam mooy xaraf wu ci nekk rek boo jàng danañ da ca fay fay ci say wujur kon yaakaar naa ne ak itam képp koo xam ne sos suñu sunna su baax képp koo jëf dañ la ciy fay kon yaakaar naa ne mboolem nuy jàng alxuraan tey ci daar yi loolu lépp yaakaar naa nag moom euh, suñu suñu bàyyi bàyyi kenn jël wàllam Cheikh soo Moustapha Bassirou moo ci njëkk jël wàllam kon yàlla na yàlla doole leeram kon sëñ Mbaye Thiam ngi leen di sant ci jotaay ak mbokk mi ñu àndal euh, sëñ Malamine Diouf euh, soxna Mame Wade mi nga xam ne moo ànd ak ñun suñu Abdoulaye Diom ba mi nga xam ne fekk nañ fi moom itam di ñaanal bu baax nag si abo Madiana Diakhate mi nga xam ne tey moo nekk ci bopp daara ji moo yilif daara ji ànd ko ak mboolem jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñëpp ña ngi ca di ñaan itam ñi nga xam ne sëñ Isaaka mi nga xam ne tey moom la sëñ bi teg loxoom ci lii mu def ci liggéey boobu tam bi nga xam ne yaakaar naa ne kenn ku ne gis na eh, lim ci def ak mu ci liggéey ak mboole ñu ko àndal suñu Cheikh Fatma ak ñun ñëpp ñaan yàlla yàlla jàppale leen ba lépp loo xam ne nii luñ bëgg a la ñoo xam ne daal murid yi taalibe yi ab liggéey boo xam ne képp ku bëgg lu baax képp ku bëgg am ëllëg lu baax ma ngi ca dugal sa loxo soo bëggee ay xewal ñu ngi jégalu ñëpp di jégalu bu fekkee ne am na lu juum ci lu dëng ci wax ci ndax soxna Aliou si ni ko waxee daanaka diggante bi ma ko waxee ak mu ñëwee mu 30 minutes kon du lu ma wàcc te ndimbalu lu ci jub rek ndimbalu suñu borom la. ko war a beral ak cant ndax pas lu baaxam ndax bëgg liggéey suñu ñu si lu bëri jàppale si bëri lépp lu ci rek. ñu ne moom la ma dañ koy sant bu baax. waaw bëggoon nga ñëw rek ci li ma la laaj. waaw tënk rek waaw ci. daal waaw daal ñoom liggéey bi moom moom la wax nañ ko waxaat nañ gën ci jàpp gën a doole ba kuréel yi su gën a bëri daara ji gën a yokk kuréel yi war a mën a góorgóorlu gën a góorgóorluwaat ci liggéey xam ne daara ji dafa war a am beneen dimension lañ jël dimension boobu nag pour mu am. il faut que kuréel yi gën a a sosu jàppale nit ñi te xam naa ne euh, pas-pasu taalibe yi euh, suñ ko nosee rek mën nañu am war a tamit soppi seen doxalin lu bëri alxuraan mooy alal Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa dafa ne alxuraan ak xadiis ak ci commune Thiel mooy suma doomam kon Sëñ Tuubaa ku am tawféex di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci daara alxuraan. mun ngaa jàpp ne tey ñu ngi si Tuubaa te damaa jàpp ne euh, jaaree ci maam jaara pour am si Tuubaa mooy gën a gaaw kon nag ñu góorgóorlu ci liggéey si Tuubaa góor ñi nag dama leen gën soññaat ñu bañ a bàyyi liggéey bi ci ci dox soxla yi ndax li soxla yi ci maam jaara ñoom ñëpp noonu lañ bëgg dañ ci gën a góorgóorlu bu baax parce que sëñ bi euh, daanaka wax ji moom lu solo jàll na waaye nag euh, li muy fàttali rek mooy di wax ak waajuru ndongo yi ne leen na seen xel gën a dal te sëriñ bi ñu ko jox moo leen gën ci gone yi. bu ko defee ñu bàyyi ñi ñi leen saytu ñu ànd ak ñoom ci loolu. ba dara du ci yàqu waaye xale bu fekkee ni ngi jàng foo toll yaa ko jéem a nemm ko di ko jéem a woo téléphone di kii su ko am lu ay jëf-jëf yu rëy la de andi ci liggéey ndax ki toog di liggéey war a ci bis bi nga woo ko bu lay wuyu rek lam lay sa doom moo ko bokk na doomu jàmbur yi ci daara loolu ngeen di ci bàyyi xel baax dañu def sëriñ bi li sëriñ Fallou wax eh, liggéey bi bu boo ko gisee ne xam ne loxo yu bari lañ ci kenn ku nekk nag fa nga ci nekk ñu ngi la ciy sant di la ci ñaanal bu ko jotaay bi day euh, mate woon kenn ku dinañ la tudd fii ndax bu ne jàng jàngalekat lañu ñuy wax kon jàngalekat yi ñu ci biir ñu yor lépp ci daara ji ci biir euh, sama kàddu nag fi nga ko mujjal ci li ma ci seetlu mooy liggéey bii ni ma ko gisee du liggéeyu maam Diarra du liggéeyu sëñ Mouhamadou Mountakha du liggéeyu Porokhane liggéeyu Sénégal nañ ko xam liggéeyu Sénégal la kon nanu ko xam ñi ko jiite ñi fi nekk ñëpp nañ xam ne liggéey bi liggéey humanité la waxuma Sénégal waaye ba ci àdduna wër nga këpp war nañoo xam ne modèle bii bu ñu ko jàppee te topp ko dina doon loo xam ne ku ci roy dootoo amati koy jiggaan te jigéen dañoo wax ne arab da ko al te madrasatun idha atata adata shaban tayyiban arab jigéen mooy école boo defaree benn jigéen defar nga am nation kon lu ñu doon def ci góor muy baax rek boo ko defee ci jigéen mu baaxal lu baree baree baree bare kon foofu laay tënkee.